leen ma noppi jox leen ma noppi jox leen ma noppi daay wax man lu baax tarafet jàmbaar ji buy jëfitam waykat yi sañ di jotal Cheikh Abdoulaye Lahat sëriñ Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Abdoul Ahad Mbacke mi ngi gën a jamono ci dëkk bi ñuy wax Buxaatul Mubaraka ñu gën koo xam ci njaareem atum 1914 ci njaareem ñaari waajuram yu sell di soxna Mariama Jaxate ak sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ndax bi mu gën a jamono sëriñ Touba dafa waxoon ne am naa ci moom yaakaar ku man tur wi doo dem sawara ku nekk naa déglu ma ma wax ba xam mën naa ko wala mënuma ko ku nekk naa Abdoul Ahad yi Abdoul Ahad nekkoon na ku jàmbaare loolu te bëgg alquran nekkoon ku ñàkk caaxaan bañ ko daan wooyee baylaat ñàkk caaxaan nekkoon ku teel a mokkal alxuraanul karim sëriñ Hamsatu Jaxate moo ko jàngal alxuraanul karim doonoon ku bëgg liggéey ba daan def sax commerce ngir wane ne nit dafa war a dundee lu lew da daan bay bañ ko daan tuddee baykat bu mag bi ni la nekkee woon ba xëy doon xilaafa Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul wuutu sëriñ Fàllu ci xilaafa gi ba mu toggee xalifa nag indi ay coppite yu bare bari ci murit gi bokk na ci moo yokk jumaa ji moo fi def bibliothèque bi moo fi def stade bi ak aynu rahmati li ëpp ci forage yi moo ko fi def moo defaraat marché Ocass yokk courant mbedd yi ba ci sax université Baylat ngir nit ñi di fi wa taawanu alal birri wa taqwa wala te loolu mi ngi ko royee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si Abdul Ahad Mbacke nii la nekkee woon di déglu lu baax ak tere lu bon ba ci sax di tere lu mel ni tux ak naan sàngara ba daan wax ne lii may tere sama bakkan laa ci garanté ku ko nanguuta bàyyi ñi ma bokkal Serigne Touba nag seen bakkan laa ci garanté daana fàttali nit ñi si sayxatil mawti ngir delloo leen ci yàlla daana soññee ci worma ji ñu war a jox dëkk bu sell bi di Touba ba di leen fàttali waxi Sëriñ Touba ji di Touba li abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati si Abdul Ahad Mbàkke la fi nekkee woon di liggéeyal tëdd ki Sëriñ Touba xaadimu rasul bay jub addi Sëriñ Touba dundoon daal di wax ne maa ngi jub addi ku tedd ki dundoon te romb ko di ay teggin ci man ba mu amee juróom-ñaar fukki at ak juróom yi Sëriñ Touba xaadimu rasul dundoon la wóoju suñu borom subhaanahu wa taala nekkoon sa Abdoul Ahad Mbacké yal na ñu ko yàlla fayal yal na yàlla yokk ay leeram te tas ci barkeem sant gu ma leen sant ngërëm lu leen gërëm seere gu seere seen taxawaay ci wàllu sëñ Tuubaa loolu sant la koo xam ne mënu ma leen ko ñàkk jotal ba mu leer leen nañ te amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw ñëpp laa ko boole amul kilifa amul surga ngir gis naa ne lépp lu ñu yëkkati jëme ko ci wàllu sëñ Tuubaa seen jom rek ngeen ciy teg ak seen bakkan ak seen yéene ba loola am na ko bëgg la bamba yoroon sa mbaat nga kër yi fi woon mbooleem ni Seex Bamba naa lool lépp di ko matal